asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi asalaamaaleykum yéen ñi safoo Sénégal TV seneweb.com dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yi tey di àjjuma yemboog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier 2013 àllarba gii ñu génn lañ doon màggal li nga xam ni nii mooy guddi yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ko doon màggalee fépp ci Sénégal waaye fa ca rawoon doon Tiwaawan Tiwaawan nag ku ne xam ne ni fa lañ daan defee gàmm gi ren ñu tomboogoon ren yemboog li nga xam ni nii mooy cent onzième e édition ñu ko doon defee fële ca Tiwaawan Kaolack ak feneen ak feneen looloo tax le quotidien daal di fësal ci xëtam bu njëkk xam ne ni kat kii di Cheikh Al Maktoum nekk xalif général képp kuy Tidiane daal di nay nag def kachem daal di nay def markam parce que nag euh, xalif général Tidiane bii nag nga xam te ne nii mooy gàmm ga wante terewul nag la nga xam te ne nii moom la diglee ay dispositif am tax na ba nga xam ne nii ku nekk xam ne nii kat sëñ Cheikh moom moom dafa imposé markam ñu ne ko ah lan la mu xam ne kat kii di Pape Malick si moom daf ko yóbbu fële nga xam ne nii mooy Jawiya El Hadji si ginnaaw bi mu toogee fanweeri at te defeewul foofu gàmm gàmmu ko ndaxte xam na ni ku nekk ku xam Pape Malick Sy daal di xam ni kat moom fële ca centre de course ba la daan gàmmoo waaye nag ni ki gàmm gii ñu génn moom sëñ Cheikh dafa ni ko mu daal di dem fële sa jawiya Alhaji Malick Sy kii da ko daal di yóbbu fële ci jawiya sëñ Babacar Sy ginnaaw bi nga xamante ni moom it toog na lu yàgg te demu fa daal di ñëw xam le ni kat cent onzième e édition wu gàmm kat moom ki nga xamante ni mooy almaxtum daal di nay joxe coup de jeune ñu ni ko lu tax mu ne ginnaaw teewul de digle daal dina fay des ndaxte nag dajale na ñoo xamante ni nii toog nañ lu yàgg te gisante wuñu looloo tax le populaire daal di xam ne ni kat xalif général Tidiane moom nekkul woon ca gàmmu nag waaye des lu xam ne ni nag confrérie yi maanaam këru diine yi ñoom ñëpp dañoo àddu nag jëmale ca jàmm ja ca xam ne ni moo nekk ca Mali ñaan nañ jàmm am Mali ñaan nañ tamit wax nañ tamit xeex contre ñi nga xam ne ñooy intégriste yi ñi nga xam ne ni ñoo naan l'islam la ñuy mbubboo te li naka li ñuy def moom yemboowul ak diglay l'islam looloo tax Abdou Aziz Al Amin maanaam junior daal di nay wax nañu sécuriser li nga xam ni mooy frontière yi ndaxte kat ay moom du yem ci bopp borom la quotidien daal daal nay wax wax yu rafet fële nga xam te ni nii mooy ca gàmm nga xam le na ni euh, Sénégal jàmm rek moo fi a xeex na ay révélation yu mag ndax na daal di nay wax ni kat te ni mooy Salif Sadio nekk chef rabali las daal di ñëw daal di xam le ni kat sëñ Abdou Aziz Sy Al moom ginnaaw bi nga xamante ni dafa guddee jógee ñëw ci fële ca zawiya alhaaji babacar si ba mu doon célébrer mawlud ba xam le nañ ni kan moom ki nga xam a na ci li nga xam te ni nii wax na ko ndaxte moom kan xam le na dem fële nga xam te ni nii mooy zawiya sëñ babacar si ci wetam daal di fay célébrer mawlud mawlud bi ndax ginnaaw bi ñu xamee baax moom euh, fële ca zawiya el hadji malik la daan tàmm di fa di célébrer li nga xam ni mooy l'observateur daal di séq waxtaan ki nga xam te ni nii mooy Omar Youm Omar Youm nag nekk membre APR ba pare nekk directeur SNR moom nag daal dinay xam ne ni kii di procureur euh, spécial musta tere ki nga xam ni mooy Karim wadd ak Ndiaga Yalem ñu génn territoire national deseñ si le populaire mu ñuy xamal ni kat alxamis ji ñu génn ca conseil ministériel Macky Sall moom daal dinay ni dafa bëgg nag ñu wax ko lu dafa bëgg lu leer a leer ci bien public yi moom mu ngi xam ne ni kat moom mu ngi déclarer la guerre képp ku nga xam ni nii ni muy caxa caxatee li nga xam ni mooy oto yeeg

ba tey ñu deseñu ci le bi ñuy xamal ni ci jamante coupe du monde 2014 bi kat ñu ngi ñuy xamal ni match ba waroon am fële ca Banjul moom dañ koy yóbbu fële ca euh, Conakry ndaxte le 23 mars lay am ñoom ñu ngi koy xam ne nee nañ nag Sénégal Angola moom fële ca lañ koy defee ci ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars 2013 ba tey ci laas moom mu ngi xamle ni kat foofu ca Conakry lay am ndaxte li tax ñu choisir Conakry du dara lu dul pelouse bu baax ak autorité yi déjà nañ ca impliqué woo ba tey bu ñu desendee ci l'observateur ci ci sport mu ñuy xamal ni nak sugu mom mu ngi Marseille sugu nak mom li nga xam tane ni daan nako rêver bi mu nekké xalé manam dox ci tanku ki nga xam ni moy Drogba ak ñaar daal dina kay amal té nak mom daal dinañ kay transféré yobbu ko feulé ci Marseille lolo tax sax le quotidien daal di xam li ni Fap pap Sugu mom mu ngi sa bu Marseille suñu lamb ñu ñuy xamal ni kat Eumeu ak euh, ñu ngi ni ñom ci combat wu Eumeu ak modulo bi lolo tax maximal Mbargane daal di ci tontu daal di xam ni mom modulo mom kumu daan amul ngañ jaañ xam ni kan nak mom mëna daan mën na jaaxal ki nga xam te ni nii mooy Eumeu seen waaye baala Gaye 1 tamit xam na ni ne moom ci tontu boobu xamle na ni Modou Lo moom mën na sax daan ku gën ku gën a aay ki nga xam ne ni mooy Eumeu Sène li gën a fës ci bopp yéen kaay yi l'observateur moom mu ñuy xamal ni lu kéemaane la xew fële ca Pikine ndaxte ñu ngi ñuy xamal ni kat benn jigéen xale bu ndaw bu tolloon ci fukki at moo daal jiiñ ki nga xam ne nii mooy xaritu papaam ki nga xam ne nii bi mu àndeek papaam ak léegi ëpp na juróom-ñetti at mu daal di koy jiiñ ni moo egg ca moom laas moom daal di ñëw ak ñun ci lu kéemaane ndax xam la ne ñu benn diriyanke diriyanke bi kat dañ ko jàpp muy tux yàmba moom tëj nañ ko 45 jours l'observateur di ko feeru ni Anna Gomis mu ngi tolloon ci 44 ans am na jëkkër am juróom benn doom kooku nag dañ ko daal di tëj 45 jours ndax dañ ko ko fekk muy tux yàmba l'observateur daal di ñëw ñun encore ba tey ci drame bi nga xam ne am na fële ca Scat Urbam ñoom nag ñu ngi xamal ni Seydou Waya dañ ko fekkoon fële ca néegam mu daal di génn àdduna ca këram. suñu mbokk internet yi fii la ñuy tàggoog yéen ci seen revue de presse di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf.